ci ñenteelu fan ci gannaaw ndekkite ci ndekkitam ba yeesu daldi feeñu ay nit ñu bare yéesu nekkatul ku dee wante mu ngi nekk ki dund noonu la daldi dajale ay taalubem yépp te wax leen ne mu feeñoo ay taalubem jox leen ndigal ne dem leen ci àddina si yépp te ngeen waar nit ñi te ñu tuub seen bakkaar te gëm ci man te képp ku gëm ci man soobleen ko ci ndox te dina mucc maa ngi dem wante dinaa ñëwaat noonu yéesu di wax di jóg di dem ci asamaan ba noonu mu reer ci seeni bët gisatuñ ko wante ñu nga taxaw di sentu ci kaw asamaan benn malaaka feeñ ne leen lu tax ngeen di seet kii dem ni ngeen ko gisee muy dem noonu lay dellusiwaate dem leen te wax nit ñi ne yéesu yéeg na ci kaw asamaan te waare ji kàddu dégg gi